gifted and Safi Ramadan Mubarak Singapura, sudah Singapura, sajak Singapura, sajak Singapura, yow man wecc de bul ma laaj wecc waaye da nga ma si saaga dul yow dul dul eh, eh, eh, dul dul baal ma grand boo am boo la ci jox ma jël na ah. da am problème sot sot ubbal yow la def yow liggéey kat fii di dạy ngắm mình l l l l li ke no ba do do do la nga yo ubule yo sen nga li ngay wax yow weeru koor gi tal naa leneen lu dul liggéey nit yaa yaa ko def yaa def gis nga naa la wax yàlla rëbb na koy yee fin na moo yee yee fi fin na te yow yeekat fin na yow waaw ba tey gis nga nga jaay ma jaay nga ñàkk a jaay ma ñàkk a jaay loolu yàlla la gis nga man naa la wax benn affaire gis nga ba may ñëw fii sama yaay daf maa yeb daf maa ñaan. yaay yaay ñaan ñaanal lu sot. bu eh. ngay wax da ngay nax nday taxaw eh. ah bul dee bul dee eh. eh. ñaanal lu. ah xaw ma mais man dañ maa yeb ñaanal ma. doom yow naat. koo bëri koo saaga baal naa la. Safi. Ramadan Mubarak. Golly Records. Ramadan. ma man de. yow yow li may nekk fii fii yëpp yaa may liggéey ba mënumaa jaay benn so sotti yow. yow astafurlah man dama am jotu di liggéey nit gis nga naa la xamal benn appel nga jaay man ñàkk jaay loolu lépp yàlla la. ban ya ya yàlla. yàllaay joxe wërsëg. yow liggéey kat kat bu bon bi yow yow yaa ma ba. bett yow du ma topp sax ndax yow yeekatu finn nga te yàlla rëbb na ko yee finna kan mooy yee finna yow kan mooy yeekatu finna yow nit bi du ma la topp katu nit ki yow baax na ba tey waaye danaa la xamal ne man bu may ñëw fii dañ maa yàpp dañ maa ñaanal samay waajur dañ maa ñaanal ka law waajuram ña ña ña ñaanalu yow xaw ma ka eh, eh, dul kay ñu maye ko yow liggéeykatu nit bu bon bi sam papa ma yooyu nga jox ko xaas dañuy ndog ji yow laa xaar waa si kanam dem déedéet waxoon naa ko sam papa xamoon naa ma ñëwee fi doo ma jox dara ñàkk nga jom trop bi nga fi suba ba tey mënoo fexe ba jaay ay magita ah, ma jom bay bëgg a di nga bëgg wax rek mu tël ñàkk ñàkk jom nga moo tax di nga bëgg wax mu tël soo ma wax ma waxate ma. soxna si. waaw am na. nga jokk paa bi moom fan yii liggéey loolu non jokk ko rek ne ko ëppalee ko. li li nga laawa. loolu la laawa bëgg bëgguma luy de eh kër ga yow. bo bon ba bëgg a dee nekk fi di yalwaan rek. yow kii moo la gën. yow doo nit sax. sëñ bi jégal naa ko ba beneen yoon yéene bi agsi na dégg merci. ka ma doon dundee nit ko ko xool ma dof nga nga naan fii ne dox ma yow damay jàpp jàpp bay sama may na lay akala mag yow. yow da nga maa xamul sax. bon bon ma ma ma ma leen suturaal. di ko di ko dox li mooy su su jox si su suuf du koy yë yëg. mais li xam nga ni bu mu ko joxee ñun ñett la yem. ju xamoo benn cox xaaral ma dem sa jaay sama jaay yow toog yow taatu maa la. waaw man maa ngi ju ju ju julli di wóor na te ak sa waaw man lan moo tax ba lu ma jeex jaay du jar nag la la la damaa takk soo soo sobe wala la la la man liggéey. been sing like them. them. Happy Ramadan Mubarak, Golly Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي duggati nga ci kër gi boo ñëwee rek kenn du dégg loolu la. asama ah, pa pa papa. dimbali ma sama papa dafa wut lu mu ndogoo. waxoon naa bul bàyyi pa pa bi génn. eh may ma jàmm boo mënoo indi lu ñu ndogoo ko bàyyi mu génn. man li li li ngay yu ma. loolu may jàmm dee yow doom lu ñu ndogu. may taa réew rek. tey ma sa gémmiñ gi ba nga mën a wax doo koy wax ak man ñàkk jom bay bëgg a dem. lii lan la. ki dafa ñàkk jom. nee na la moo tax may bàyyi sama di dem. moom mënu indi luñ dogoo pare mi bëgg a rey nit ñi wax. ay waay màgget yow mënoo def ni man yow xanaa xamoo ni góor bu amul benn jom amul benn fayda danga koy ignorer. Eh. ignorer kii nga nekk sa jàmm. yow. ñàkk fay la doyul ni sa baay ju fajar di wëri loo lekk yow nga tëdd mais mais lu may udee xaay yéen ma le liggéey liggéey yéen yéen waaw yow de war ngaa xam ne ñun sañul sax liggéey sànq lañ hmm. ba lay liggéey yow su ne doon liggéey dañ lay liggéey nga am jom di liggéey dekk indil ñu xaalis mais pas ñu lay liggéey nga eh, ñàkk fii yéen yéen wóor na ma da ngeen nekk si dëkk bi di wër rek yor rek jox ko jigéen ñi nga doon yow ñàkk nga jom mënoo wax boo mënoon wax sax gaaw du liggéey eh, di di ñu indi sax mën kaa seere loolu sa bopp ama ah, gën a ñàkk fu bu ñëwee andi nga lekk comme d'habitude ma di dimbali eh, tey sa xaas boobu sam papa nee na soxlawul sa dërëm est que yaa may dégg teel sa xaalis yéen yéen la rek sama papa moo la wax wax soxlawul xaalis yow. xool ko yow kañ ngay mën a wax xool 100 francs yi nag nee na de 100 francs lay jox. ju jugu leen fii fii. man maa ngi dugg ci amul benn jom fii. jaangil wax moo gën ci yow. yéen boo demee yéen a ngi ca ca ca ca caaga ku yéen ñaar. biir yu rëy yi. wuy sama ndaay waaw <laughs> lu ma dal. Ne. Ja, ona. And Safi Ramadan Mubarak Records gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records.